jamono ni mu tëddee moom sang bu tedd ba imaamillah il mahdi rawatina jamono ji nga xam ni moom la ñuy dund nga xam ni nit ñi la ñuy nawee nit mooy alal ba tax ñëpp bëbb rek jëm ci ëppalante ay alal mu ne wala takaatharu maala dunya buleen leen alal alali àddina mu ne bal waaye li fi nekk kay takaatharu na ngeen ëppalante خير الآخرة يوي الآخرة هو الذي موي لغا خمن يورث موي دونالي النعم المؤبدة خيول يو دابتوي بمعنى موي خيول يو سخ يغا خمنتين فتبارك الله دا فاي يوكو ريك تدو وانيكو تيدو جيخموك ودرجة العليا اك درجة يكوية موخ امام الله عليه الصلاة والسلام نه ولا تحرسوا bu خير على الدنيا جمتي jëm من فإنها نحن كي fa innaha ndax ni ki كون فتبارك الله jiifatul gis nga aduna lu muy rëy rëy liñ koy bëgg bëgg liñ koy xemem xemem sang bu tedd ba imam imaamillaahi mi ngi koy misale med mu neud nak la laa yakuluha du ko lekk ilal kilaab ndere xaj ya wa nusur ak tanya mu fatrukuha na ngeen ko ba wala taxuzuha te it bu leen ko jàpp moom àdduna li annaha daarun xaraabun zawaalun wa zawaaluha qarib mu ne day kër la goo xam ni kër gu ràpp la kër guy jeex la kër guy dañ la aji jege la mu ne na ngeen moytu na ngeen teet an xiilin waxaalin ci neef na ak nee na mu ne ndax fa rubbama bariyaana laa yakunu du nekk yajtamicu di daje mbaa di dëppoo maa xiila ca la neef na wa ma sumia ak ca la ñu dégg bi ma kaana ak la ne kon fa tabarakallahu wax ci nañ koy toxale dafay soppeeku soppeeku boo xam ni ba muy jóg ci kàddu ci làmmiñ di am fa muy jaar kooku muy jaar ci moom mu koy sottiwaat feneen lu bari da cay mën a soppeeku kon nag mun a yow mu ñu ñëw nettali la nee na na nga moytandiku wax yooyu nga xamante ni fa tabaarakallaahu waxi nettali la neef na ak nee na ak dégg na mu ne wala tazunnu bu leen njortal li axukumul muslim ci seen mbokkum jullit الى الخير ندير يو تبارك الله دا فا ام اي جام يالا يو خامني يالا دا فلين ناتو نياو نجورت تي نياو نجورت نك موي فيبر بو خامنتي ني من نسونال بروم كون فتبارك الله بو رفتي نجورت سي مبوك جوليت دينا لا نوبال تي دينا كو نوبال waaye bu fekkee ni lu jàmm yàlla wax rek nga gise ko neneen noo xamante ni nii anam bu ñaaw la fa tabaarakallaahu kooku dafay jeexital feebaru xol ci doomu aadama kon sang bu tedd ba imaamallaahi ne na ngeen rafet njort ci seen bokk jullit te wajtani bu na ngeen teet wajtani bu na ngeen moytu an suu i ci ñaaw njort فإن الله نحن كي يالله دي عند زن عبده ميغي تنجرت الجامبة ما يوخت يري دي ميغي تنجرت الجامبة